nawet bi ñëw na ak Covid bi ak paludisme bi comme ni ko sama natango waxee bu ngeen xolé université amna service médical bo xamantene manam muccul ayib parce que luy am juróom-benni lal je pense que ak univers ak ak espace bo xamantene ne day plus de 80 000 étudiants loolu lu doy war la te feebaru mbass bi mu ngi fi paludisme dina fi ñëw te ñun bëgg nañu bu fekkee né tay ji ni administration c'est-à-dire que le ministre de l'enseignement supérieur wala le directeur du COUD ñu jàppale ñu de telle sorte que les camps soient équipés en en moustiquaire bu étudiants renforcer euh, euh, euh, dispositif sanitaire pour permettre permettre étudiants de faire des choses. pour permettre aussi de ci am choses aussi au niveau des restaurants comme la période taw lañ nous ñu nous ñu ci ay comme Música